mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu ñu ngi ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm euh, j'espère que euh, nuyoo bi dina leen fekk si jàmm rawatina sénégalais yi ñuy seetaan yëpp ci Sénégal ak ñiy seetaan bitim réew waa jaspora bi ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di ziar ñëpp ñëpp ñu nekk ci jaspora bi du ma taay di koy wax ñett ba ñeent mbër mën naa leen nuyu foofu kenn ki saa Kajoor moo ami mon frère euh, Jaguar yàlla na ko yàlla may jàmm fa mu nekk ca États-Unis ah xaritam Mohamed Euh, Cartouche maa ngi lay nuyu di la ziar mon nami mon frère yow xam nga man xam naa ak beneen gaan bi nekk diggante Belgique Espagne ak ak ak France maa ngi leen ziar. alors di ñaanal ñëpp jàmm euh, ñu nekk ci weer bu tedd weeru màggal yàlla nañ ci dem ak jàmm màggal ci jàmm ñibbi ñibbisiwaat jàmm yàlla nangu ñaan yëpp ñuy wax chauffeur yi nànk rek taalibe yi tamit nànk rek ah nànk rek ñu dem ci jàmm ñëwaat ci jàmm incha allahu rabbi euh, tey maa ngi ak benn mbër un champion. ñu naan ko Ndoye ñan mooy turam dëgg mais tur làmbam Ndoye Laxas la foog naa ne euh, Ndoye Laxas seen xel dina leen may lu bëri parce que bu daan taxaw rek mu Gueye nga daan gis ak tànk yi dëng yi <laughs> taxawaay mu Gueye lay roon mu nekk ci diggante boo xamante ni ñun ñëpp euh, ci as axlu làmb askanu làmb ñun ñëpp war nañ cee teg suñu loxo dama koy bàyyi d'abord mu nuyoo Ndoye maa ngi lay nuyu dina la ñaanal jàmm. ba xam yaa ngi si jàmm naka yaram bi ma bàyyi la nga nuyoo ak askan bi ñuy seetaan. auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim. ginnaaw bi ma sant yàlla julli ci Seydina Muhammad wa sallam di nuyu askanu làmb di nuyu Sénégal di nuyu monde entier waaw. nuyoo nga noonu nag jeex na. waaw nuyoo nga <laughs> naka yaram bi. mbaa yaa ngi waaw yaram bi waaw yaram mi ngi waaw mi ngi lii rek ndax. kii kii rek kalang kalang waaw waaw faju daal dama wér daal lay ñaan yàlla pour pour pour faju pour pour wér complètement quoi mën a dellu samay activité mhm. xool yeneen lu may dellu euh, ndooy Ndoye Niang Ndoye laxas lañ koy woowee xam naa vidéo bi dañu koy seetaan tuuti ñu rafraîchir la mémoire samay combat ñu daal di ñëw ay combat am na combat mu ma reporté mais nag seen TV loolu yàgg na waaw yow ak super jamono numéro 2 moom la ñuy dem seetaani ngeen xam kan mooy ndooy laxas ñu ñëwaat ci waxtaan bi deuxième combat ba ngoog arbitre bi sifflé na super jamono numéro 2 moo nekk suñu ndeyjoor ndooy laxas moo nekk suñu càmmoñ ngemboo ngembul xonk ndooy laxas ku mën mbapat la waaw waaw jàpp rek la bëgg fi mu nekk nii xool leen rek ey dóor na ko uppercut jàpp na ko ouverture la bëggoon jàpp na ko ey mbaa du na jógaat na dañ ko touché ey daanu na oh super jamono kawote il kawo daay laa toppal leen ma xale bi di ndooy laxas alors ndooy seetaan nañ la léegi ndooy bañ doon gis ak ndooy tay bi ute na man sànq bi ma la gisee dama ne non kii du moom quoi te en plus boobu gënoon nga ñuul mais léegi da ngaa xees ndooy tawat ndooy ñaata ñaata temps nga tëdd tawat. depuis sama combat Makarado la jour bu combat Modou Lo Gris Bordeaux bi mujj bi 2018 xaw ma 2017. bi ñu mujjee combat Gris Bordeaux Modou Lo waaw bu may bu Karado la sax ma. Mhm. ndax boobu sama entraîneur maa leen ko wax sax mais après xam nga rek dañ ne ma bisu mag la yaa ngi doog am bisu mag. Mhm. spécial ngay bëre. Mhm. juróom maa bëri spécial bi. ngir mhm. bëroo Modou Lo. avant combat bi bi laa commencé di génne sang quoi di génne deret. deret affaire waaw bi combat bi jàllee nag la ma affaire bi attaqué. yàlla def ma dugg hôpital yi hôpital Ndakaaru yëpp dugg naa fi daan ñaani sang dem di ñaani sang mais feer bi dafa nekk sama deret quoi. dafa nekk sa deret waaw dafa nekk sama su ma su su ma demee ñaan sang ni jël ko même pas deux trois jours damay sang bi day génnaat quoi dama koy tuur ndox. deux jours trois jours. waaw sang da ngay day génnaat waaw day génnaat may may may maigrir waaw di jeex tàq di jeex tàq di weex di maigrir. depuis 2010 yaa ngi dund loolu. depuis 2010 maa ngi ko dund après yàlla def ma dem hôpital euh, Dantec. Hmm. Euh, principal a dem CNT wàllu deret ñoo koy faj quoi CNT. CNT moo nekk cité. côté cité yooyu. Hmm. ma dem faju foofu mais après may jëlee analyse di faju di faju faju hmm. mais dem naa ba xool xam ni après sama benn médecin sax daf bëggoon def benn analyse a am na analyse boo xamante ni da nga koy def ci butéel. dañuy jël sa sang ko ci butéel pour mu dem France. pour ñu xam bu ñu demee bay wax yu mel noonu rek. mu leer na kon yow waaw ay calmants la lañ may bindal ay doom. Mm-hmm. léegi doom su may lekkee pour mu rees doom yooyu laay jël. pour boo lekkee ba pare pour lekk mën lekk mën a rees da ngay fatt sinon boo naan doom yi boo toogee 3 jours 4 jours da ngay jékki. dootu moo dox sax ndax da ngay sa deret di koy wàcc. Hmm. waaw xam nga loolu du feer bu ndaw. waaw hmm. te ci ci làmb laa nekkoon. Hmm. waaw gars yi xam nañu bu baax ci làmb laa nekkoon def na ay sept combats. six victoires waaw ñëpp kay xam nañ la Ndoye. waaw mais Ndoye avant combat bi nga ko am combat bi pass nga gën a sentir lool depuis 2018 nee nga Modou Lo ak Gris Bordeaux loon. sa combat maa bëri spécial bi Kara Doole Kara Doole. Euh, alors lan nga jàpp ne lan la. feebar la sonn la dog la wala nan la. non mbiri suñu borom rek sant yàlla xam mun na nekk tamit ndax boobu damay enseigné mbapat yi di topp mbapat yi ba nga génn continué waaw man waaw man moom dof affaire moom taxaw bañ naan la daaw ma gees da nga naan entraîné bañ naan dafa ànd ak noppalu. dëgg la xam rek. waaw boo nekkee xale boo doo comprendre bu bëri quoi. Mm-hmm. oui noonu la demee waaw mais ba tey nii euh, feebar bi léegi daanaka naka lay. non feer dem feer bàyyi bàyyi mu bàyyi ndax doom yooyu la moom laay nan xam nga su ba mën a ba a fajo ba mën a wér. ba tàggaloog doom yooyu. Mm. loolu moom mooy wér gi mais boo lekkee ay doom ngay naan. pour mu booy tëdd waaw booy tëdd ay doom ngay naan ay comprimé ngay naan xam nga tamit la. waaw loolu garaaw na. loolu garaaw na quoi léegi deret ji yaa ngi koy jël par trois ba tey. deret deret bi léegi doom yooyu noonu doom yooyu noonu mooy mooy xeexal li li li jël li capturé deret bi. waaw doom yooyu moo koy xeexal doom yooyu boo ko arrêté rek. Mm. comprendre nga. Mm. comprendre bi day génnaat exactement. nga soxlawaat. waaw ndax dama doon ñaandu dama doon ñaandu deret rek lépp waaw. Mm-hmm. waaw loolu la doom yi waaw te doom yooyu tamit mënoo ci wéy quoi. ok moo lay changé nii moo lay changé nii. moo tax nga changé xees. waaw moo lay changé moo lay ndax ay doom ngay jël booy lekk waaw bu jeexee rek da ngay dem jëndiwaat. Mm. depuis sept ans seeru seeru yàlla dafay ay mille trois cent lay jar waaw mais day sayram bi day da ngay am naa ci jënd lu bari non li ma gënal non naan ana tànn naa non doom yooyu du la faj doome maanaam day calmé day bi faj bi continue sept ans kay maa ngi ci liy calmé ah laa ñaan faj waaw faj moo moo ñu soxal taal waaw faj faj laa bëgg wér dellu samay nekk mën a mën a dem liggéey ci mais instant ni kattan taxaw kattan liggéey sax doo ko pour nga téye jaaj sax moom mm. man fi mu nekk nii <laughs> allah taxaw sax loolu la ko xam nga nit kenn daaw taxaw mooy nit quoi deret nga li ngay lekk xam nga muy rees ak yëpp mm-hmm. après ci laa xam quoi mm-hmm. waaw te man mosu xam mosu ma nga xamee xees nag non man damay <laughs> xees ah, jeex wàññeeku euh, ñu ngi ñaan ñëpp taxaw ci mais am na ñu lay taxaw Tidiane Faye maa ngay nuyu au passage déggante nañ léegi téléphone. waaw mi ngi sàkku képp koo xam ne bonne volonté nga ñu jàppale suñu xarit bi suñu xarit la ñoo bokk làmb ji man xaalisu làmb lañ may fay ci laay liggéey ay at ba tey moom ci lay yëngu kon boog bu amee tolof tolof war naa cee taxaw ak keneen ak keneen ak keneen na ci ñëpp taxaw mbër yi jot avance laa wax mbër yi jot avance actuellement na ci ñëpp taxaw na ci ku nekk dugal benn junneem au moins sa loolu moom maa mbër yi jot waxuma waa Lansar rek de. mais mbër yu jot avance yëpp ku ci nekk na ci dugal as tuutam ndaxte kat suñu borom ay mbiram ay mbiram la yor de waaw ay mbiram la yor de kon boog ku ci nekk rek na nga taxaw sama Gris Bordeaux président les lutteurs en activité bëgg naa nga yëngu ci lii yow Gris Bordeaux maa ngi la koy ñaan Balla Gaye Modou Lo Tapha Tine Bombardier yéen ñëpp yéen ñi nga xam yéen a nekk ci kaw ah, maa ngi leen di ñaan ngeen taxawu ci Eumeu Sène Lac de Guiers 2 yéen ñi nga xam ne yéenay magu xale yi njëkk leen wane seen bopp ci wàllu googu alors am na ñi nga ñi jot a gis ñu jàppale la. waaw depuis bi may bëri nag ay waaw am na sama ne gànnaaw bu baax moom Serigne Diallo fi la dëkk. Mhm. moom France la nekk quoi. Serigne Diallo si ginnaaw la dëkk papa ma bi ñu ngi France maa leen mhm. moom mhm. sama waay la. daf si jàpp bu baax. oui depuis ma feebar rek léegi bàyyi ma quoi mi ngi xool ci lu ma lu may nekk ak yooyu quoi di ma jàppale borom bu baax la. yàlla nekk ci làmb ji nag. wala bëggoo wax gars yi nekk si làmb ji waaw non gars yi nekk si làmb Matar Gueye maa ngi koy nuyu tamit. Matar Gueye dafa dafa dafa geste bu garaaw waaw Matar Gueye. bëgg démb jabaram moo jógee kees kër. seet ma wallaahi indi ma xaalis. Oh, macha allah koy nuyu waale maa koy nuyu waale di ko ñaanal moo xam li mu mébét. waaw di sant gars yëpp Cheikh Niang président Igri Lamsar waaw ak Maxime Bargane hmm, hmm, waaw ndax man lam lu mu am la ci ci làmb daanaka lamsaar la. caaro gi laa jàngee bëre fa laa doon nekk dañ bëri. Baye Fall taxaw ci bu mais lamsaar ci laa bëree. Siteu ak Siteu Baye bi maa ngi lay woo. yow Siteu Siteu yow xam nga ma xam. Balla Gaye 2 Balla Gaye 2 man maa koy woo moom sama waay la ma xamante nañ Balla Gaye 2 mm, mm, mm. jour combat bi bëri tey maa bëri quatrième combat suñ jumtukaay ñoo den nii muy doom di ma di ma mbala ak Gris Bordeaux ñëpp maa ngi maa ngi tàllal loxo ñëpp waa ahlu làmb Marème fay Sall kooku da cee a jàpp. waaw mooy waaw li mu defal li mu defal mbër ma ko. li nga defal saaka ma faj man naam wér rek ay xaalis yooyu. du dara ay xal lañ bu ñu wéree rek waaw. mais instant yii nii man xam naa li may dund li nekk semaine xam naa ko xam nga. Mm. nañ ma jàppale mooy jéem a faju mm. pour wér Mhm. pour mën a nekk si yeneen. est-ce que jot nga def ay démarches au niveau ci ci Marième le Sénégal. message bi ma jàlle woon keroog laa daw laa jàlle woon quoi mooy mhm. message moom mu mi ngi may woo mi may woo ñu déggante bu baax a baax. waaw ñu déggante bu baax. xam naa su ma jaaree ci moom su jaaree ci moom pour ma am Marième Faye Sall dina jël waaw. waaw affaire loolu la mhm. waaw affaire problème wér la mais ay problème liggéey man sama liggéey laa nekkoon ba dugg ci làmb nekka ci yéen ba yàlla dogal li mu buuse laa yor dibiteri laa yor bu dee waaw waaw feer mën nañ ko faj feer mën nañ ko faj ndax mais benn am na analyse yoo dañ ne ma dañuy jël sa sang pour dem France xam nga tubaab bi moom boo tukkee rek hmm. bu yàlla defee nga tukki rek fu la yàlla mën a xëy nga tukki hmm. rek hmm. moo moo moo lii Sénégal quoi xam ci wàllu feebar bi mais mën nañ ko faj dañ koy faj dañ koy faj dañ koy faj dañ koy faj waaw na lii mënutul wér wala buy. buy non non non mën na non mën na mën na wér mën nañ ko faj mais faaw ma faaw faaw yàlla jàppale ma jéem a génn fu ma yàlla xiir rek moo dem faju ji mais pas yàlla nga génn Sénégal dem faju ji. am waaw waaw mën nañ ko faj. gaa yi lu ñu mën a faj amul lu ñu mën a faj amul xëy na xam nga mm-hmm. fi ngay fi ngay jaar ak fi ngay lii rek waaw mais bu yàlla defee jàmm am na ñoom boo dalee seen loxo rek mm-hmm. yàlla waaw mm. yàlla mën na nga saakajoor xam nga koy nuyu wàlla moo tamit sama sama la ñëw na mm. ngaay mm. benn jour waaw ambulance xaw ma ambulance numéro 2 maa ngi koy nuyu moom saakajoor waaw moom sama grand la ñëw na ngaay ñu gisee xam moom sama waay la way saaka jan maa ngi koy nuyuwaat waa Europe waaw maa ngi nuyu waa am na ñu may woo ñu may defal ay xéwal yoom bëgguñu sax ma seen tur mm. waaw ñu may wooy fu ne dama waaw dama def ay xéwal waaw mm. bëgguñu sax ma seen tur mm. mais nag da yaru woon nag bi ngay bëre moo tax il faut nit ñi est-ce que xam ne looloo tax ma def déplacement bu non dëgg la yow dëgg parce que man ak yow suñu combat boobu ban année la boobu nag bi bi ay 2014. xaw ma 2000 waaw 2014 2015 yooyu. 2014 2015. waaw loolu yàgg na loolu yàgg na dama bokk nag ci sa carrière. Ah. waaw dëgg la parce que suñu combat boobu sax yaa ko reporté rek. comme maa ko reporté yow si la jàmm numéro 2 bi ñu seeraan léegi ndeysaan. alors da ngay tëdd. ak fëgale ak fëgale fëgale maa ngi koy nuyuwaale. waaye ñu koy woo moom it. waaw ay Baye Ndiaye gars yi sama copain ñëwoon na fi temps yi sax mais delluwaat na. Mm, Baye Ndiaye Baye Ndiaye ak Pakala Pakala Pakala Junior États-Unis ah. Pakala ak Nees waaw gars yi maa ngi lay nuyu waa Lamsar Super Étoile waaw. Yaw Jaan Sénégal xam na ko fi moom moo doon fecc nañu waaw woo ma États-Unis moom sama gars la quoi waaw maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp waaw mm. mais alors da ngay toog sa yaram di metti nii wala boo tëddee di nga nelaw wala ni muy manifesté ay douleur bëriwul noonu non day manifesté day manifesté douleur sax mais mais maam doo am kàttan quoi sa deret bi lay xeexal. da lay ngacc waaw doo am résistance. doo am résistance waaw ndax sa deret bi lay xeexal. Hmm. tey boo toogee 3 jours 4 jours jëloo bagage yooyu rek. Hmm. da ngay commencé deret bi. comprendre nga ba commencé maigrir waaw. waaw di daan. waa Lamsar. Hmm. waa Lamsar ñoom ñëpp samay waay lañ. maa ngi sant ñëpp waa Lamsar waa Thiaroye Géej. waaw ñooñu dañ ma jox man la cër boo xam man man ma cër bi mooy lan sax waaw ku ma ci romb rek da nga may jox cër boo xamante ne waaw xëy na kon noonu la <laughs> kenn ku ne nga man foo ma mm. romb rek lu mu tuuti bu dee dërëm la sax da nga yëkkati ni ma ndooy am mm. teel mm. waaw waalam saan maa leen nuyu baax alors yaa ngi génn di soxla. waaw su ma génn waaw parce que si biti ah, ma jël si. waaw mais dama activité bi amoon nag amatuma ko quoi léegi man damay xëy rek ne xanaa ne kër ga. Mhm. su ma ñëwee tam place président Cheikh Niang président équipe Lamsar. waxtaan foofu ñoom Pape Malick ci mhm. raxam yeeg yooyu maa ngi leen nuyuwaale ab Abdou ak Pape Malick ak gars yi. Mhm. ak pël gaa yi foofu sama gaa yi foofu laay toog. waaw muñ heure li ngoon jotee mu fàttu ji dugg ci. waaw mais fi mu nekk nii moom xam naa moom li ñu waroon wax yëpp wax nañ ko. faju bi rek moo ñu ëppal importance. Euh, boo mënee génn ñu fexe def la tout. waaw loolu lay ñaan maa ngi koy ñaan. xaalis bi Marème Faye waaw ponk waaw ñi nga xam ne ñu ngi def waaw te yàlla hmm. bi lii. Marème Faye sax waaw bi. mais tamit mën nga woo kii euh, monsieur le maire Barthélémy Diaz day def ay. social ñoom ñëpp dégguma la xanaa am parce que ku gox ba nga nekk danga nga fa toogal askan bi. waaw et puis aussi les députés tamit ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo. Hmm. ku mën a jàppale noonu la demee rek waaw ci lamb laa nekkoon bu ñu les ku ci mën a jàppale saa waay ko jàppale. Ah. boo mënee ñëw ay Sambay waaw Sambay keroog woon na waaw Sambay waaw gars yi woo woon nañu waaw. macha allah ñoom baax na bëggoon daane leen nag <laughs> alors ñoom ñëpp promoteurs yëpp Aziz. Aziz euh, ñëwal jàpp ci baay euh, ñëw leen ngeen jàpp ñëw leen ngeen jàpp ci waaw jàpp leen ci yéen ñëpp yéen ñëpp Pape Abdou Fall. ñëwal nga dugal ci sa loxo yow it. Euh, papa Gaston sama goro <laughs> mag yow ak Magane ñëw leen ngeen jàppale ko ah alors. foofu rek laa mën a yem alors naka naka njawoot njaboot gi nga yor soxna ak ay doom. non amaguma soxna soxna Ndoye. xam nga xam mi leen lamb lañ. Ndoye naa la may jabar. waaw xam mi leen ah, lamb lañ. waaw jërëjëf ci laa xaw a tawat ah, jamono bi nga doon sport amagoo woon soxna. amagoo woon soxna boobu am na lu ma am lu ma lu ma gëmoon quoi. ok waaw xam nga après bi ma jógee ci loolu tamit laa feebar tax. mais Ndoye da nga doon dem nag. mais <laughs> ndooy bu taxawee ñu ne Moustapha Gueye ngi nii borom tànk yi yàlla rek boo dóoree waa da nga doon dem nag de macha allah mais yàlla na yàlla na yàlla na yàlla defal léegi waaw mais Balla Gaye de moom hmm. moom sama moom sama waaw dama koy woo Balla Gaye dama koy naa non xodug man Balla Gaye man waaw xam nga xam naa ne dañ ci taxaw ma Balla xam naa bu ko déggee rek moom xam naa waaw xam naa Balla Gaye xam naa bu baax a baax a baax di sama waay la Balla waaw xam naa loolu moom loolu moom lu ma leer la parce que man Euh, xol xol bu rafet la yor xol bu rafet la yor ñoom ñëpp ñoom ñëpp ngeen tax incha allahu rabbi ndooy maa ngi ñaan yàlla man mii sama bopp. Euh. man li ma fi ñëw nii yàlla naa fi jóge lépp lépp lépp décanté wu. jaana jaana amiin yàlla naa fi jóge incha allahu rabbi lépp delluwaat ci jàmm ñu yóbbu la. faji la di sama waa dëkk waa Ngaye. Ngaye Mekhe dama maa ngi maa ngi sama ah. sama koñ. ah Malick Thiandoum yow itamit dem dem rek déggante nañ ah. téléphone. waaw ah, jeex kon jeex na xamoon naa ne ci taxaw. waaw nga nekk nii sa famille. waaw fii sama sama gàlle nijaay la. sa gàlle nijaay waaw sama nijaay la nekk waaw moom bi ma bi ma jógee Ngaye di ñëw fii ci moom laa nekk. Mm. jàppale moo tamit waaw vraiment taxaw na ma ci lépp maa koy ñaan yàlla yàlla fay ko. amiin yaa rabbi waaw ndax kuy def lu baax moom da ngay ñaan. yàlla defal jàmm. yàlla na daa buusee moom la ñu daje noonu. waaw waaw gis naa toog bi dafay yàgg. waaw bàyyi nga récupérer ñu dem mais jéego yi ñu dox yàlla na doon jéego yi jàmm xéwal sutura ba paju am. jàmm am incha allahu rabbi ñun lool mooy suñu mbébét. dëgg dëgg looloo ñu tax a jóg comme ni mu ko waxee ñoo bokk làmb ja bu kenn tawatee rek war nañ cee taxaw. Ah. kenn Serigne Diallo maa ngi maa ngi maa ngi koy waaw président Serigne Diallo waaw. France mm-hmm. instant yii fi quoi. Mm-hmm. waaw maa koy nuyu bu baax di ko sant bu baax quoi. moom mm, sama waay dafa yëpp ak ñi nekk Amérique nekk bitim réew. te bëreetuñu yéen tamit yàpp leen ci waaw loolu moom loolu lu ñu seen wareef la wareefu ñëpp la ñun ñoo ko bokk suñu làmb la ñun ñoo ko bokk nañ leen jàppalante waaw làmb moom boo laalee kii. le ministre Matar Ba. ak Fëgal 2 Fëgal 2. Fëgal numéro 2. Fëgal mi ngi France tamit waaw moom waaw Ba waaw Ba waaw Matar Ba waaw. Ah, waaw Latif Latif <laughs> chargé de com jàppale. fajj pour mën a wér quoi. alors euh, mbokk yi kon foofu la ñuy daal di euh, yemale waxtaan bi ñu ne ñaanal jàmm. amiin amiin Ndoye Laxas. Hmm. nañ vidéo am li ñuy waxtaan tamit yéen a ngi seetaan vidéo am ñu bàyyi la tàggatoo. waaw maa ngi sant yàlla bu baax rek waaw di julli jot di sant ñëpp yéen tamit. tànk yi ñu fi dox ñëw mm-hmm. yàlla na ko tànk yiw waaw ndax loolu moo jar jëriñaan quoi waaw di sant ñëpp rek mm-hmm. waaw mm-hmm. képp ku ci jàpp rek yaag mooy may dégg yàlla yàlla fay la yàlla yàlla defal nga daje ngërëmal suñu borom yàlla na yàlla defal wér amin amin amin amin amin amin euh, aca xewal sama waaw jaagara cee bon kàttan day jàpp bu baax gaynde gaynde day kii day day gën a jàpp waaw ah, fu mu mun fu mu nekk day gën a jàpp gaynde yàlla nga jóg ak jàmm insha allahu rabbi